tey jii jot nuyoo bi suñu kilifa gii muy Serigne Cheikh Ndiaye Mbengue nee na ko jot di njabootu Cheikh Ibra na dina xamal ni Serigne Mouhamadou Mountakha mi ngi leen di nuyu ab nuyoom jaar ci jëriñam gii di Cheikh Mouhamadou Bassir nee na mi loxoom yor kàddoom yor lépp Serigne Mouhamadou Mountakha. nee na bés bii ni mu toll ci sëriñ bi toll ko ci yoon wi moo tax sëñ Basiru Mbàkke bii ñëwoon na fi barki démb de ñëwaat fi tey jii teewal fi sëriñ bi nee dina jot li kàddu yu gàtt ba bokk taalibe yi xam ni sëriñ Muntaxa Mbàkke mbirum sëriñ Seex Jëmb Faal mii yitteel na ko ndax lépp lay Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Fall te Serigne Cheikh jëmb aw doxinam moom lépp rafet na mu ànd ak Serigne Mountakha Mbacké liggéey bi kon bu wàccee fi def kenn na ko su ko mënoon mooy ñëw moo tax ndawam lii di Cheikh Mouhamadoul Bassir may ko ci lépp keroog ñëwoon na fi jaale tey jii dafa ñëwaat di sëriñ Muntaxa indi ay kàddoom indi am njaalam kon nan déglu tuuti mu sant ay kàddu njaalam yii jóge ci sëriñ Mouhamadou Muntaxa taaliba yëpp mën cee jëriñu kon ku bëgg a jëriñu da ngay déglu sëriñ bi bisimilah ñu déglu sëriñ bi Cheikh Mouhamadou Bassirou Mbacké nee na asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu nee na xanaa day mottali kaddu yi Serigne Cheikh Mbacke moom sëñ Abdou Latif wax ndax neewoon na ko sax say kaddu doy na ndax soo waxee yóbbaale nga ma yóbbaale it Serigne bi nee na xanaa li ci yéene bi yéene ko ci. sëriñ Cheikh Mbacke Abdoul Aziz matale na ko kon nee daanaka doy na sëkk nee na xanaa day nuyu kon bokki taalibe yëpp ginnaaw jotaay bi xat na ndax ñi ngi dagg sax siyaare yi waaye na ñun xam nañ ni Serigne Touba moo nu gënal lépp ndax fii ñu nekk day alal Serigne Touba. nee na yëfi alali yëpp alali Serigne Touba waaye ñun nag ñoo ci jiitu ñun njabootu Cheikh Ibra ndax li ko waral nee na mi koy nettali Serigne Assane Fall mii moom Serigne Mor Moussa Fall ndax am na kilifa ku ko ni ko Baye Fall lu leen wuutale ak murit yi des ndax dañ leen a ab garaat mu ne ko ni ko waral loolu ki jiite réew mi moo ko laaj nee na moo ko laajoon barki démb nee na mu ne ko li ko waral mooy maam Cheikh Ibra Fall nii yoon wi doxe ba tax ñu wuute ak yoon yi ci des Cheikh Ibra Fall seen maama ko fi indi ndax Serigne Touba mësta wax kenn ni ko sujjootal ma mësta wax kenn ni ko toogal ma ci suuf mësta wax kenn ni ni ko jox ma sa alal nee li nu wutale ak yoon yi Seex Ibra fa indi nee loolu ko indi nag nee tam fàggul leen nag yéen njaboot gi nee loolu fàggu jëf la ba àdduna di tukki nee du ngeen ci soppi ku mukk loolu tawfeex la kon sëriñ Cheikh Ndiaye Mbengue moom sëñ Mor Moustapha nee sax Basiru Mbàkke nee na ñu ngi bu baax di la siyaare bu baax ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha nee na mi ngi lay ñaanal sa jotaay bii nga wuutoo Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall yàlla na lool te sama borom la ci defal ay ndam ndax ku fi mas a ñëw. ci nii rek la lay fekke mooy toppee amoo génn bëgg amoo génn bañ nee na ni nga war a mel rek ndaka jekk faal noonu nga mel nee na kon yàlla na Serigne Touba doon nee te rafet jot ci loolu ñu ñaan ndax sa dana ko liggéeyal waaye sa waajur wa itam Cheikh Modou Moustapha Fall nee na waa kër Serigne Touba yëpp ko fonkoon ndax kenn ku ci ne jaar naa yow ci nee ku ma sa am yitte ci ñoom ci sëñ Modou Moustapha Fall la daan ñëw waa kër Serigne Touba yëpp man moo tax pour ma sa gisee ku bokk ci ñëppal seen Moustapha nee na kenn desul amul ci yéen sago loolu seen waajuroo moo leen ko fàggul parce que boobu nekkoon ci moom. ak njàmbaar ga nee moo roog a laaj yi nee na kon ñu leen di ñaanal di ñaanal suñ kilifa gu baax ga sëriñ Seex Jëmb Faal yàlla sa borom dolli ay leeram nee jàmbaar a ngoog nee na doy lam liggéeyoon ci jumaay Tuubaa ji ci jamono Seex Mamadu Faadal bañ la ko ca daloon dal ko ca mooy dana jóge ca kaw daanu ci suuf ah nee na sëriñ Fallu leen sëriñ Seex Jëmb Faal demagul dina liggéeyal maamam nee sëriñ Fallu Mbàkke moo ni war sëriñ Seex Jëmb demagul dina fi toog liggéeyal maamam nee na waaye jataay bi am na ci ndax lim fi jëf kenn dootu ko fàtte te loolu rek moom lañ soxla nee na mi ngi wax sëñ Assane léegi ni ko yéen ñi taxawoon sëriñ bi ak bii nga xam ne bu ñu tuddee doomam ma ngay ñang sëñ Omar Doumbouya taxawaay rafet na ndax sëriñ bi tëddaay bi yàgg na waaye dara musu sooxe dara musu taxaw nee loolu tawféex la kon nii nan ñëpp nañ leen dollee ñaanal Serigne Cheikh Jëmb ndax dafa wuutu woon jàmbaar muy sëñ Modou Aminata Fall ndax sëñ Modou Aminata dafa yóbbu bu yoonu Baye Fall foo xam ni jàppoon na ne ginnaawam dara duutu mën fee waaye loolu nag seen maama kon yow mii sëñ Cheikh Ndiaye Mbengue wuutu Cheikh Moussa Fall tey. ñu ngi lay ñaanal baax tey dala am xel ci yow bu baax nag nee rafet njort ci yow bu baax di ñaanal njaboot yëpp nag di nuyu nag sëriñ Amdi Faal moom sëriñ Moodu Mbenda moom mi nga xam ni yàlla def na tey moo fi jëmmi Seex Ibra Faal moom it jotaay bi yàlla yàgg lool nit ku baax la yàlla def na nee na ñëw na ba ay këram siyaar si ko moom sëñ Basiru te booba moom mënu ko ndax màgg gi lan ko doon yëkkati waaye Pastef rek Pastef rek a nee kon ñëpp ñu leen di doon leen ñaanal bu baax liggéey bi nga xam ne mooy liggéey Seex Rafaal bi mu bañ a laal suuf gën a jëm kanam nee loolu sax moo ci am moom waxin la rek. waaye moom seex na da koo fonk ba noppi nee doonuñu ci dara moo ko jëfal Serigne Touba Serigne Touba fayee ko ko ba mbiram seex faal saa su xëyee kenn du ci doon dara moo koy jagal sëñ Basiru Mbàkke murid yi sëñ Cheikh Mbàkke Abdou Latif sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng sëriñ Assane Fall jëwriñu sëriñ Touba ji ñun murid yi nan leen doole ñaan jëwriñ mënut a ñàkk de. te boo amee alal mu mel na la gënal li ngay ñaan sa mooy mu yàgg te wér te ni nga mel gënal na murit yi sëñ Basiru Mbàkke yal na fi yàgg ak njabootu sëriñ Tuubaa gépp sëñ bi nee na ñëpp dalal li nga ci seera Faal ca seera ko ca président ca jël fekk wu ko bëgg sëñ Tuubaa la ilaha illallah la ilaha illallah la